moment historique moment historique la ñu toll. les patriotes TV. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati mbokk baax baax si ànd bi nga naan ak seen seen bi de les patriotes TV te la juma fan si weeru mars 2024 dal la jàmm si xibaar njëkk si bis bi. ñu xëy yër li nga xamante ni moom la journal yi xëy fësal tey ñu coppati si ay lëf rek loo xamante ni ñoo daajal leen ko fi ngeen daal di koy déglu. jur góote ko seen nopp la tax ñu indiwaat yeneen xibaar yoo xamante ni yooyu gën a yaatu lay doon doolee ko li nga xamante ni moo di présidentielle journal bi nag tuddee ko six seize jours de chrono maanaam fukki fan ak juróom benn rek moo tax si li nga xamante ni nag mën nañ moo di campagne bi waaye journal bi bàyyiwul ba léegi nee na nag seet saa si nag mujj nañu fekk ci ki nga xamante moo di président Macky Sall ñoom ñu nag dañoo bëggoon organiser élection yi laata mandat président bi yii di jeex moo tax ñu jàpp mars waaye date élection nag ku nekk xam na ne président moo koy jàpp moo tax ñu daal di fekk ji ko élection ba léegi nag li nga xamante ni moo di campagne bi journal bi nag nee na nag dinañ commencé campagne bi samedi bu minuit jotee la campagne bi di commencé CNRA tamit organiser li nga xamante ni moo temps d'antenne bi yi nga ni moom la candidat a candidat bu nekk si nga war a toog jàkkaarloog ñi nga xamante ñoo di si askan waxtaan wax ak ñoom li nga xamante moom ko bëgg. Njaga si la xam-xamam màcc ci wàllum élection moom moomee nag di wax ne président Macky Sall mii kenn mën a dem day toog xaar ba élection yi jàll ak jàmm ndax nag comme conseil constitutionnel fexe na ba élection ñu organiser ko nag kon Macky Sall mii day toog même bu deuxième tour amee fexe ba def passation de service ak ki nga xamante ni moo ko war a wutu. F24 daggee fale sa lànga ne ki nga xamante ni moo di président Macky Sall ginnaaw bi nga xamante ni tas na lii di gouvernement bi te ba léegi ni tabagut ni nga xamante moom la ñuy wax ministre intérieur kon nag jamono jii nag dañoo bëgg nga tab ministre intérieur bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw ndax mu mën a jublu ci liggéey bi ndax nag ay élection moom ministre intérieur bokk na ci ñi nga xamante ni dañoo bokk ci ñu ci ñu ko war a doxal loolee nag F24 daal nee nañu daal bu ñu sañoon mu nekk koo xamante ni daal day indépendant te day neutre koo xamante ni daal farul si benn parti. Déthié Fall yëkkati ay kàddu démb bi muy jàkkaarloog taskatu xibaar yi di wax ne daal di diggé ne loi amnistie bi nga xamante ni jàll nañ ko foofu noonu sa assemblée nationale moom mii nag bis bu nekk président loi amnistie boobee nag dañ ko fi daal di jëlaat ndax ñi nga xamante ni ñoo fi lorle wala ñi nga xamante ni ñoo fi faatule dafa war a leer ba nekk ko ci nekk ko war a rooj boo pare ñu dogo xool naka la ñuy def ak lu ñu mel. waaye na ngeen xam ne élection présidentielle yooyu ba léegi di dara lépp yembagul de ndax nag ñi nga xamante ñoo di mooy Mamadou Badio Camara ak ñi nga xamante ni moom lay àndal ñoom ñooñeen nag luñ bëgg daal mooy seetal seen dër moo taxoon kut ko kut daal ñu bëggoon organiser ay yoo xamante ni daal président Macky Sall da koy def sa na mu gën a gaawe waaye nag li nga xamante ni nag moo di matériel yu war a ànd si élection yooyu mën nañ ne tasaaree guñ ko si biir réew mi bulletin yi nga xamante ñoo war a tamit mën nañ ne tasaaree ko si biir réew mi kon nag mbir mi pëccoxoo na lool te mën nañ ni fukki fan ak juróom benn wala fukki fan ak juróom kepp moo dox suñu diggante ay élection yooyu bokkente noonu ñu jox leen dig daje si kanam incha allah jaa ngeen jëf